yanamar ak FRAPP ñoom dañoo fas yéene jàmmaloog euh, préfet bu Ndakaaru ndax ñoom ñaari mouvement yi da lañoo fas yéene wàcc kaw tali bi naam sax préfet daleen leen tere boobule dox ñaxtu ndax dal ne dafay salfaañe dem beeg dikk bi ci euh, mim réew RTP yaram dal na bu baax a baax ci yenn opérateur téléphone yi euh, ndax fukki milliards ak juróom la Sonatel war a fay ñaari milliards Saga Africa Holding Limited moom sax marque bi di Free benn milliard Expresso war koo fay dina ay daan ndax dañoo daal di daal indi ay manquement ci réseau bi nga xam ne dañ koy jox euh, seeni euh, client conséquence maanaam li nga xam ne yor ay ngànnaay ci ay jàppante boo amee li mu jur ci koom-koom ak lim ci yàq ay téeméeri téeméeri million ci mim réew waaye tamit euh, lu mu néew néew téeméeri doomi aadama ñàkk ci seen i bakkan diggante 2019 ak 2020 bu ñu sukkandikoo ci ONG bi ñuy wax malo ñaal pàcc xibaar yi tàggat yaram yéene kay ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pouy moo fara ci digital bi asalaamaaleykum Seydou indiwaat poste premier ministre gannaaw nag conseil des ministres assemblée national dafa daal fas yéene tàmbali procédure bi député yi nag tey ci àjuma ji la ñu xool boobule projet bu jëm ci saytuwaat constitution bi ngi daal fexe ba indiwaat post premier ministre ci constitution bi nag muy nag beneen ni eh, coppite ci wàllu woowee du Sabakh Ba ba ñu koy indi coow lu bari woon loolu waaye tamit bi ñu ko bëggee dellu si tamit coow li mu ngi ne xur li nga xam ne ne mooy post premier ministre bi ñu ci yéey di yàbbi ci bu ñu fàttalikoo Sénégal du guléet muy def lu ni mel Léopold Sédar Senghor supprimé woon na poste premier ministre bi ci diiru jàpp 1970 jooju nga xam ne ne mi ngi ci woon opposition bu tar ak Mamadou Dia ci atum la indiwaat poste premier ministre tabb Abdou Diouf moom moomee gannaaw ba mu li nga xam ne ne mooy nguur gi def lu ni mel ci atum nekk ñaareelu président bu Sénégal lam ci jublu woon rek mooy mu am gët ci li nga xam ne ne noonu la gouvernement bi di 91 Abdoulaye Wade nekk président première alternance moom mësul xalaat tàqalikook li nga xam ne mooy chef gouvernement bi ci diir gi mu toog ci bopp réew mi ki nga xam na nag jamono ji moo dëkk ca palais ba nekk fak locataire moom it jéem na lu ni mel gannaaw bañ ko tabaatee ñaareelu mandat ci atum lëgëy wa diis lool ca moom ca président Macky Sall jëlee projet de loi jébbal ko député yu 13 législature ñu càmbaraat li nga xam ne ne mooy révision suñu constitution bi ngir ñu mën a indiwaat li nga xam ne ne mooy poste premier ministre bi ci loolee waral lii mu naan fast track waaye tamit lii ñu kon fas yéenee tabb présidence union africaine ci diirug 2022 jàpp 2023 lu ci mënti am rek budget bi nga xam ne nataloon nañ ko primature balaa ñu ko supprimer ci atum 2019 tolloon na ci tolloon na ci ñeen fukk ak juróom-ñeenti milliards ci suñuy koppar Amadou Sabar Ba waxtaan sax war am bu juróom-ñeenti waxtu jote te ci suba ah, ci nag ngoon si député tam war fa des ngir saytu projet bu jëm ci budget bu ñu war a jagle ministère bu urbanisme ak hygiène publique juróom-ñett waxtu teg na juróomi simili fii ci RFM. ak RFM kumpa na. Y'en ak ñii di waa FRAPP dañoo fas yéene jàmmal ak préfet bu Ndakaaru ndax ñaari kuréel yooyu nag dañoo fas yéene wàcc tey ci kaw tali bi. Euh, naam sax euh, préfet bu Ndakaaru da leen tere boobu doxub ñaxtu ne daal dafay salfaañe dem beeg dikk bi moom sax di préfet daal di fàttali arrêté Ousmane Ngom buy daal di tere daal ñuy daal dox ñaxtu euh, lak ci avenue Malick si bi loole nag ñu jàpp na ñoom ñii di waa Y'en ne du dëgg du yoon caat bu mouvement Y'en a marre ci téléphone beeg Serigne Saliou Seck quatre heures ci après midi bu ñu julee tisbaar ba noppi danañ def suñu doxu ñaxtu jógee buntu université ñoom fi ñu wooyee buntu assemblée nationale ñu li ko waral mooy ne dañoo seetlu ne suñu yoon bi ñu jeng yoon bi Macky Sall jël na ko salfaañee ko foyee ko def ko yatam nekkee ne mbirum élection la mu jël yat bi nga xamante ne moom la ñu wooyee justice bi jëm ci wàllu constitution foyee ko def ca la ko neex ñam bëgg a dajal ci élection yo mu mu dajal ñoom ña neex mu xañ leen élection yooyu ñeneen ñi mu jàpp leen tëj ñeneen ñi mu exilé leen askan bi la mu jël li bi ñuy wooyee yoon pénal bi tëj activiste tëj ay doomu aadama xoqatal ay doomu aadama ba li ci jëm ci fichier électoral sax gis ngeen élection yi ñuy dégmal niñ fooyee xelu askan bi ak askan bi yëpp ci ay gox goxaat jël ay préfet yi nga xamante ne doonuñu ay préfet ay représentant APR lañ ci gox goxaat yi ay militant wu APR lañ ñuy interdire wala ka yàq wala ak ka wax naan liste bi rek liste bële baaxul yooyu yëpp ci ay injustice boole ci jàpp activiste boole ci bi ci mujj muy di kilifa ñëpp xam ne jàpp bi biñ ko jàpp bi ñu ko téye ku ne xam na ne aujourd'hui fi ñu toll Sénégal lii kidnapping la. ndegam préfet tere na leen yaakaaroo nii bu ngeen amalee doxu ñaxtu boobee mën naa jur fitna ci ndakaaru waaw ki bëgg fitna mooy kiy tere ndax boo fekkente ne. loi Sénégal dafa ne yëgaleel. boo yëgalee ñoom ñu ñëw encadré nga yëgalee. yow def nga la la war. ñoom nañu def la leen war yoon nag bu teggee yoon ñoom sax di waa Y'en ak ñii di waa FRAPP fa seeni amal seen conférence de presse tey ci suba ca siège yu FRAPP assemblée bu université na Diop bu Bambey nag génne ab communiqué jox dal ay tegtal commission bu discipline daal ngir mu déglu étudiants ya fa doon def naka su dul noonu euh, mu sax dëggal daal ne sanctionné na ci wàllu di ay sanction disciplinaire daal ñenn ci ay étudiants te sax muy fàttali. ñoom ñoo ñooñu mun nañoo dem def seen i recours euh, fañ ko wax defee waaye nag laata ñuy amal boobule communiqué assemblée bu université Alioune Diop nag euh, étudiants yi ña nga woon ca conférence de presse ni démb nag ngir joxani baaraamu tuuma daal nu ñu jàpp ne yoroon gu bon la jóge ci seen kilifa yi foofee rawatina mbiru pédagogie ak euh, social waaye daal ñoom ñi day étudiant foofee nag ne li kilifa yi def du du tax daal ñu daal di dellu gannaaw Babacar Diouf. étudiant Bambey du avancé. ni yi nekk ci université Alioune Diop bu Bambey yépp ñoom ñoo booloo ne li nga xam ne moom lañu leen di teg dafa war a jeex. camarade bi si ñàkk bakkan na devant bi def loo xam tool yi dëkk du yokk loolu nag moo tax étudiant université Alioune Diop bu Bambey yëpp toog waxtaan c'est le moment que dafa doy dafa doy. yemuñu ca ñoom danoo tuumal administration bi ne ni muy yore affaire pédagogique ak sociale yi dafa woyof. des étudiants qui sont omis des centaines d'étudiants. parce que pourquoi parce que l'administration refuse de partager les états avec les représentants. des étudiants qui voient leurs notes avec des erreurs avec des zéros qui ne parviennent pas à pouvoir les euh, rectifier. li ci gën a doy waar nag te jaaxal leen moo di ne nee nañ ñoom ñii di délégué yi de ñu ngi leen di xopp ci suuf. nekk devant da leen di conduire justice dañ ñii la recteur Mekhe Diaw dañ koy wax su ma nee na jàppee jaay baax su jàppee jaam jàpp Assane Ndour terewul leen jaan yi wàcc lu ci mënti xew tey ci alxames gi danoo wéer ngàndaay yi wante nag ñoom ñëpp nee nañu xeex bi dafay wéy fii ci Bombay Bombay RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf jaajëf ñu waxtaanee nag li nga xam ne moom mooy ni ñu jëfandikoo yenn xeetu ngànnaay ci mim réew ba ci ay jàppante ak li mu jur ci yàkkute ci koom-koomu Sénégal maanaam. ay téeméeri téeméeri million dal Sénégal di ci ñàkk boole ci namit lu mu néew néew téeméeri bakkan xot na ci diggante 2019 ak 2020 li nag mooy ay résultats yu duppee ci liggéey bi nga xam ne ONG Malawo moo ko daal di dina kuréel boo xam ne nag nee na sax lu ci ëpp ci ñu jëfandikoo yooyu lee nga ne di ay civil fii ci Ndakaaru moom moo ci ëpp ba ci ay jàppante ci yooyu lee xeetu arme Lamine Ba liggéey boobee nga xam ne nag ONG Malawo abal na ko mu ngi sukkandikoo ko ci ay crimes yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci mim réew diggante 2019 ak 2020 Pape Mbengue moom la ñuy dénk pàcc bi nga xam ne ñoo ngi ko jagleel recherche ak gouvernance sécuritaire ci ONG Malawo wàllu koom-koom bi moom gis nañ ni ni ñuy jëfandikoo ngànnaay bi parce que dañuy jël ngànnaay yi di ko jëfandikoo di song ay boutique di song ay kenkaayri di song ay four di song fépp fi nga xam ne dañ fay liggéeyee xaalis donc côté boobu wax dëgg yàlla am na ci situation bu bu doy waar bu ci nekk ay ay waa ay ay téeméeri téeméeri millions waa ci wàllu bakkan na mën nañu jàpp ay téeméer ak lu tegal monitoring boobee nga xam nag ONG Malawo amal na ko jot nañ ci it gestu ci ñi nga xam nag ñoom ñooy faral yore ngànnaay yooyee doo toog benn weer doo benn journée sans dégg ni ay civil vraiment ñu ngi jëfandikoo arme di song ay borom boutique di di ba ba ci ba di sax ay état wala sax yenn saay nga gis sax ay nit yi nga xam ne dañuy yor gànnaay di mel na luy xaw a jàmmarloog ñi nga xam ne yoon ñoom la jàpp ni ñooñu kat ñoo war a méngoo ñoo war a yore ngànnaay liggéey boobee nag liñ ci jub nag mooy fexe ba jàppale nguur gi ci xeex bi nga xam nag su mu ne ko jëmale ko ci xeex circulation ngannaay yi. lii ñu fi taataan après dañ koy jël gën ko defar ba mu jekk avec les acteurs jébbal ko kilifa gi pour que ti moom bu waree liggéey bu waree gëstu moom it mu ñu gën a mu gën a jooyante rek xam exactement fan lay teg tànkam. autorité administrative yi nga xam nag woon nañ ci ndaje bi ñu jagleeloon siiwal li nga xam ne nag moo di résultat yi jëm ci wàllu jàngat boobee jot nañu rafetlu liggéey bi nga xam ne ONG Malawo def na ko Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba mu néew néew fukki milliards ak juróom benn ci ay euh, daan euh, moo la Sonatel dal di euh, jot jóge nag yat bi nag mu nga jóge ci ñit waa ARTP ñaari milliards la Saga Africa Holding Limited moom sax Free war a fay benn milliard Expresso war ko fay lii nag mooy ay daan yoo xam ne ARTP dal moom moo ko teg ci ñoom ndax dañoo jàpp ne daal dañoo dal di indi ay manquement ci réseau bi nga xam ne dañu koy jox ñii di seeni i di nag. Euh, communiqué boo xam ne yegg si na fi ci euh, RFM ni ki bik juróom-ñetti waxtu teg na fukki simili ak ñaar fi ci RFM. pour man ci machine bi Yacine Pouy ci digital bi syndicat bu boole liggéeykatu industrie euh, alimentation nag ñoom ñu ngay oo kilifa bi di sax président de la république ngir daan mu fexe ba. Euh, sàmm yenn ci ay euh, doomu Sénégal yi moo xam góor ak góor ak jigéen ngir njàll ñu ñu fexe ba ñu daal di am liggéey ministre bi de Aliou ndoy nag euh, ñoom seen gis gi dafa daal yéex a renouveler maanaam yeesal licence de pêche yi boobu la syndicat nag ne mu ngay jural loo xam ne baaxul lu bari ci ay doomu Sénégal bëgg liggéey lool ñoom nag ñu ngi woon dem ci waxtaan. te siège u confédération nationale euh, confédération euh, nationale des travailleurs du Sénégal di CNTS dama na fakk yooyu lay waxtaan ama sayt seen duñu nangu ko ñu toroxal ndaxte kat ku la bëgg xañ sa liggéey muy li ngay suturloo mu ngi lay bëggal torox tànge yile kàddu jóge si Mouhamadou Lamine Fall nekk secretaire général adjoint bu kuréel gii di CNTS ak mën nag depuis dañu koy renouveler bi ñuy wax Tongo mu nekk ci biir port di exploité escalade loolu nag li ñu jaaxal deux mille vingt et un ministre bii fi nekk di Alioune Ndoye dafa jékki-jékki takkal loolu te waxuñu sax lu tax takkal te ñoom entreprise yooyu li ñu waroon def lépp def nañ ko ci ay këyit lépp en tout cas ñu ba mu des ci moom ay service technique liggéey nañ ci lépp ba tegal ko dossier ci kaw table mu des signature rek entreprise bii di société des conserveries en Afrique ñu duppee ko Escasa liggéeyam mi ngi tàmbalee na sax ndaxte bato yi leen doon joxi jën mënatuñ nappee ci géeju Sénégal Paul Gomis nekk délégué bu entreprise bi di Escasa. licence yi le 20 juillet la jeex. donc depuis boobu ba léegi. gaal yi mënatuñu napp ci ndoxu Sénégal. te ñun ci napp googu la ñu yaakaar pour mën a liggéey. tey ci jafe-jafe yooyu la ñu nekk. ndax suñ ko xoolaatee. jënu ton dafa nekk jën ba nga xam ne day dox te ci jamono yi ñuy wax ak yéen nii tey jën bi mi ngi nekk ci ndoxu Sénégal su jën bi nekkee ci ndoxu Sénégal te ministre bi lànk ne du renouveler licence mooy di lan gaal yooyu dootuñu mën a napp fii Sénégal kuréel gii di seen di syndicat di travailleurs de l'industrie de l'alimentation ñu ngi xamle ni ndaje tey gii benn la ci jéego yi ñu nas ngir wéyal seen xeex waaye leeraluñ jéego yi ci des Sayid Seen ñu wutali funjuñ pont bi nga xam ne nag euh, péage lay doon dina tàmbale laata njeextalu at euh, weer wi ñu ne weeru décembre dina kàddu ministre bu transport terrestre ak désenclavement ak moom ak Mansour fay moom it Mansour Faye ak euh, Matar Ba nag ña nga woon ca euh, bërëb ya ni démb ngir xool nan la fa liggéey bi demee loolu nag bu taxee daal dina dimbali askan yu foofee Sine Saalum ba sax Gàmbi euh, jàppale leen lool boobu le ci foofee na mu laqatoo amanata gu jabe ci ay leexal. liggéeyu pont à péage bu ci gis-gis pare na te fii ay fan rek oto yi mën nañu commencé di ci daw ministre bi yor wàllu infrastructure transport terrestre ak itam enclavement Mansour yaakaar ni pont dana fi am mosuñu ko xalaat mosuñu ko yaakaar tey jii liggéey bi pare na ba nga xam ni fi lekk ñaari semaine maanaam dara dem circulation tabaxu jumtuwaay gu ñu mel nag foofee ci Foundiougne mën nañu wax ni histoire lay doon ci askan wa fa yeewoo kilifa yi nag jàpp ne pont à bi ay jafe-jafe yoo xam ni askanu Foundiougne ñi ngi koy dund ay ati at a ngi nii la fi pont à péage boobu nar a jëlee Mansour Faye lu mat juróom benn fukki at ñi ngi xalaat pont lu rëy te pont bii potentialité économique potentialité touristique dana gën a développé waaye aussi dana ko désenclavé. Babacar Diamé moom mooy maire bu commune bu Foundiougne. ñun dañoo sant yàlla parce que lii tey amul kenn koo xam ne tey yaakaarul na pour am ko fii. pont bi nag ab pont à péage la waaye ministre bi yor wàllu dem beeg dikk bi di Mansour Faye mi ngi dalal xelu nit ñi nee na yi nga xam ne moom la nit ñi nar a fay daanaka du cher. bu ñu ko comparé ak lu a ñëw loolu doo jëlee la ba nga ne damay wuri Kaolack perte temps def plus de soixante-dix kilomètres de détour ak ci ay waxtu yoo fay perte yaakaar naa ni njëg bi moom mën nañu ko bañ a jëm nag ci bac bu bi nga xam ni ba fii mu ne moom moo daan tax nit ñi di mën a jéggi géej gi diggante Foundiougne ak Ndaxonga dafa paan ay semaine a ngi nii ci ginnaaw nee ñu bu yàggul dara daañu ko déplacé yóbbu ko feneen ñu fàttali ne rek atu 2000 ba léegi moom mooy jàppale askan ngir ñuy jéggi diggante Ndaxonga ak Foundiougne Aminata Goudia bi Fatick RFM Aminata Goudia bi ja Cheikh Tidiane Diagne maa la nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nour Ba. RFM sport dañ ko tàmbale ak football ak Ligue 1 ñetteelu journée ba. waaw dañ nekk daal di amal euh, ni ki weekend bi ëllëg samedi lay daal di door gannaaw ba ñu toogee ab diir bi nga xamante ni daal euh, jënguñu woon ci championnat anglais ndax grève transporteurs yi yëf yi nag ëllëg kon bokk nañ ko daal di door ci bu jotee diggante douane lay doon ak Dakar Sacré Cœur jàmbaar bu sali dana tase ñii di waa Guédiawaye football club euh, choc bi nag diggante Casa Sport bu Ziguinchor 16h30 diggante AS Pikine ak Mbour Petite Côte Gorée dana tas ak ñi di FC SNEPS excellence bu Thiès diggam ak Ndiambour bu Louga lay daal di doon ca Ndar stade maître Baba stade maître Babacar Seye foofu Linguère bu dana fa tas ak ñi Génération Foot Ligue bi tamit ñi di Oslo ngeneen jogante diggante Walidaan bu Thiès ak itam ak ñi di waa euh, ba tey ëllëg di samedi Duc dana tas ak ñi di waa FC euh, jamono moom dana joué ak ñii di waa Sonacos jamono bu Fatick dimanche 16h30 diggante Union Sportive Wakam ak Thiès FC Stade de Mbour dana tase ñii di waa altine diggante Renaissance bu Dakar ak ñii Kër Madior championnat yi ca biti réew championnat bu France ñoom tey jii danañ daal di door seen 18e journée di journée di match avancé euh, ci bu 20h jotee diggante Nantes lay daal di doon ak ñii di Club bu Lens ci Angleterre ñoom ñu seen 16 17e journée 20h Majorque ak Celta Vigo Italie 17e journée tamit tey jii ci ngoon 19h45 diggante Genoa ak Sampdoria bu Gênes euh, mën nañ ko tuddee euh, derby Allemagne nag ñoom 15h euh, 15e journée di tey jii 19h30 diggante Cologne lay daal di doon ak ñi di waa Augsbourg. ñu daal di dellu suñu réew waxtaanee wàllum nawetaan ak jafe-jafe yi nga xam te nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci wàllum violence euh, ba njiit réew mi nag jël yenn ci ay dogal ñi nga xam te ne ñoom ñoo ŋànk bi fi mu toll nii euh, ñoom d'accord lañu ci lu sax fi mu toll nii la ñu bëgg moo di ñu daal di ay pexe yi nga xamante ne dañ daal di sauver lii di nawetaan di mbir bi nga xamante ni ñoo ko moom te jéggaane ñu ko feneen loolu nag moo di kaddu Kalidou kamara moom moo di président bu ODCAV bu euh, Diourbel yëkkati yooyu le kaddu gannaaw ba ñu doon joxe subvention yenn ci ay ASC yi nga xam te ñoom ñu nekk foofu la ca Diourbel ñu déglu ko euh, ci micro Alimatou Sarr tey violence bi dafa nekk phénomène national tey kuñ fi convoqué tribunal sax balaa moo wujju violence am tey boo demee si làmb ja violence am démb gis ngeen si université yi violence am boo demee si stade yi violence am donc il faudrait que ñun les responsables ak les autorités de ce pays ñu toog ñu xoolaat xam ni lan mooy problème bi pourquoi les gens sont tellement violents actuellement nii donc problème de société la te boo xoolee ñi koy def yëpp tranche d'âge bi c'est de vingt a y a ñu jiitee ñu nekk ODCAV Diourbel donc suñu organisation tamit aspect sécuritaire bi dañ koy jël ba mot sëkk donc en plus tamit jël sensibilisation bi mën a dem ci ASC e yi mën a waxante ñoom donc on est a am solo mooy on évite les derbies surtout suñu éviter les derbies ba final rek je pense que yàlla dañu suturaal ñu daal di ko jeexalee ko wàllu basketball ak basketball Africa League jàppale nag Ndakaaru dana daal di euh, dalal léegi les tournois maanaam pàcc bu njëkk gi juróomi fan ci weeru mars fii nii ci Ndakaaru lañ koy dal di amal lëkk di Amadou Gallo Fall moom mi nga xam te moo yore mbir moomule yëf yi nag euh, danañ ko daal di door juróomi fan jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mars euh, deuxième euh, phase bi nag danañ ko daal amal ca Caire foofu la ci Égypte le 9 jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril jàpp leen nag li nga xam te daal moo di final bi maanaam final A8 bi di tournoi final bi danañ ko daal di amal ca Kigali ci Rwanda du 21 au 28 mai jàpp leen nag Sénégal ña ko ci gile jogante moo di waa Dakar Université Club. mu ngoog jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. ak RFM. RFM kumba tàggoo na ak yéen. dañu ànd ak ci xibaar ñeel Tchad ak Anna maa leen di nuyu mbokk yi juróom-ñaareelu édition Raaya Music Awards di ab soirée ngir sargal ñi gën a ràññeeku ci musique sénégalaise bi tey jii lañ koy amal laata loolu organisateurs yi daal dinañ amal ab jano ak taskatu xibaar yi ngir leeral critère de nomination yi waaye itam critère de vote artistes yi nga xamante ne ñoom la ñu njortu ne mën nañ jël euh, raaya yi dañ ciy déglu euh, promoteur événement bi Souleymane Ndiaye ci euh, micro Zanga Abdoulaye Ouattara. Raaya Music Awards moom ñëpp xam nañ ni mooy soirée musique sénégalaise bi nga xam ni ñun ñooy delloo njukkal musique sénégalaise di leen jox ay trophées di leen euh, delloo njukkal ci biir loolu dañuy xool les ténors de la musique sénégalaise yi fi nekkoon nga xam ne tamit dañ leen di primé jox leen ay diplôme ay trophée sargal yoo xam ne sargal la mais ci loolu tamit am nañ ay. sur les catégories on a douze catégories. les membre du jury mooy ñi nga xam ne dañ leen choisir mu nekk le membres du jury yi nga xam ne ñoo ngi liggéey ak ñoom ça fait plus de sept ans mu nekk ténor yi nga xam ne ba léegi ñu ngi liggéey ñoom Grand Giuseppine ñoom Grand Prince ak euh, beaucoup d' autres personnes yoo xam ne mën nañ leen citer. vote yi moom par SMS la SMS yooyu nag mooy nekk euh, ça représente benn 30 pour cent 70 pour yi ci des nag membres du yi ñoo koy joxe. Euh, membre du jury yooyu dañ koy met ñoo koy matale. ajuma ji euh, itam la ñuy door festival les blues du fleuve artiste bi di Baaba Maal moo ko taxawal ñaari at ngi nii amuloon xew-xew bi dina yàgg diirug euh, ñetti fan ca Podor ñu déglu Baaba Maal. li ma ci mën a wax daal ci festival blues du fleuve ren ci Podor mooy man sa bopp namoon naa ko après pandémie bi waa Podor namoon ñëw festival bi mais en même temps dafa naa ni festival yi ñoo gënoon a namb kii ndax ñëpp ñu naan dañoo bëgg ñëw ci festival sociale bi jox doomu aadama yi la mais surtout nag li ñu neex ci festival bi mooy la collectivité lébu bi nga xam ne jaraat Youssou Ndoye au la même de euh, du parrain bi nga xam ne mooy Alioune Sarr ministre de du tourisme parce que dañ ko place sur le signe mooy kaal yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal muy seen muy wolof muy pulaar séeréer joola ak suñuy dëkkandoo muy wolof yi bambara ak yeneen xeet yi nekk Sénégal moom mooy signe festival la collectivité lébu autour de jaraaf Youssou Ndoye dañuy ñëw ñu nekk nag ay gan yu am solo leneen li nga xam ne mu ñu ngi koy xaar ci festival bi xam naa ni mooy concert yi ñuy def prestation artistique yoo xam ni Sénégal yëpp lay wone parce que Casamance day ñëw séeréer dañuy ñëw bambara yi dañuy ñëw xaalpulaar dañuy ñëw naar yi dañuy ñëw donc kenn du des donc daal festival bi grosso modo festivalu culture la aada ak cosaan mais festival feddali kóllëre la mooy suñu gan yi ñuy teeru mais festival de développement lu itam parce que dañu initier ay projet de développement. waxtaan bu yaabu mu sekk ak suñu correspondant foofee ca Podor Ndeye Mati Dieng di ngeen ko mën a déglu ni ki ëllëg samedi Baba Mal mooy doon invité suñu magazine xalam di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg kon incha allah.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 ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf bu ñu ca yeggee ak jàmm danaa samp samam dënd doon candidat ci élection présidentielle yi kàdduy Khalifa Ababacar Sall yooyee moo xëy na dàng ci xët mu njëkk Enquête yéenekaay ne fàng ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien Enquête yéenekaay nañu moom it di Khalifa Ababacar Sall ci waxtaan mu doon def ak waa RFI ak télévision bii di France fa la ko waxe Khalifa Sall it mooy taxaw di sàkku amnistie ci kenn la seen kay nañu Khalifa ak noppi gi mu àndaloon ci mbiri amnistie gi ci mbiri violence gi ci réew mi ak ci mbiri élection locale yi génn na ca noppi ga lu ca nekk wax na ca la mu ca xalaat Khalifa Ababacar Sall mu toog taal toogi ay tànkam jàkkaarloo ki journaliste yi tubaab photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk journal Le Témoin yéen bi boole ko bind ne Khalifa muy songe la ñu gis dellu si na ci anam yi ñu ko yóbbu woon ci kaso bi dellu anam yañ ko fa génne bay sàkku ci ñiw bokkal bi ñu takku ba dëgër taxaw ngir ñàkkante ko ak gi fi nekk nee na it moom Khalifa Ababacar Sall élection élection présidentielle yu 2024 yi ku ko ca dëgg ne ko ndax gisul ko ca mën a teree bokk te it gisul ko mën a falu ci réew mi leeral na it ca waxtaan wa ne Macky Sall am troisième ci réew mi fi mu teg waxam ji l'observateur nee nañu dégg nañu ko mu wax ko démb ci rajo Futur Média ci émission yoon wi la woon ubbil yéenekaay bi nee na Macky bi muy campagne moo ne woon kenn mënatu fee def lu ëpp ñaari mandat Khalifa ne vaar baa ngi Sall di Karim Wade seen réhabilitation politique gi ñuy wax ak amnistie ga ñu cay dégmati nee nañu soxlawuñu ko Khalifa Sall nee na demandé wul dégg nañu it kii di Doudou Wade mu ne Karim Wade soxlawul ku ko amnistier l'info nañu meerum Ndakaaru ba woon di Khalifa Sall leeral na démb ci émission yoon wi ci RFM ne moom Macky Sall amuñu benn xaarma yàlla ay relation personnelle la am firnde mu ne moo di Macky Sall sol na aw dàllam ñëw ba sama sama waajur a yéenekaay bi nañu donte tontagu ci sax ba léegi terewul la mu ca wax a kës néew mooy mbambu ci dëkk bi dëkk bii di Ndakaar Sud Quotidien xëy na dañu xamal ne bés bu nar a bari jalti-jalti la ñu fi nar a gis ci àjjuma tey ji ndax ñaari mbir benn bi moo di waa mouvement Y'en a ak ñi ñu àndal seen doxub ñaxtu bi ñu woote woon tey ji ngir ne dañuy ñaawlu li ñu jàpp ne yoon ci réew mi di justice bi dafa jeng seen marche ba préfet bu Ndakaaru autorisé wu ko waaye waa Y'en a nañu yàq daay waxam dinañu marche ba sàmba di ca dem ba ñaareelu mbir bi Sud Quotidien nañu moo di projet de loi bi war a dellu si poste premier ministre ci réew mi ci àjjuma tey ji ci la ñu ko war a càmbar ci assemblée nationale assemblée nationale mu di pénc mi ndawi réew mi di daje lisé ko mi ngi ñuy wax ne démb ba ñuy nattal ministre des pêches di Alioune ab budget député yi seen góomu bopp la ñu fa doon xolli absence yi ñuy nemmiku ci député yi daanaka mu ëpp ci lañ fa doon waxtaane journal La Tribune xëy di waxtaane leneen ba di ñu xamal ne misir yi fi kilifay réew mi xamle woon jëmoon ci wàññi askan wi seenub coono misir yooyee dara ndax lu yas bu ma nga fa mu newoon ba léegi njëgu dund gi di wéy di seer ba wi doon jooy dara sensé wu ci tey la wàllu gën a aay kuy teggi moo aay ci kuy tëru yattu ARTP ba dal na ci kaw opérateur téléphone yi ci réew mi journal L'As Le Quotidien ak L'Info ñoom ñëpp xëy di ñu xamal ci seen xët yu njëkk ne muy Orange di Free di Expresso ñoom ñëpp la ARTP sanctionné ndax qualité réseau bu bon bu ñu doon jox askan wi journal L'Info nañu 16 milliards la ñu alamaan Sonatel alamaan Free ñaari milliards ak genn wàll alamaan Expresso benn milliard bu teg ñaar fukki million suur soit xëy ñu tegal ci xëtamu njëkk jaaxle yëral xët mu njëkku yéenekaay bi li ko waral journal bi nee nañu bokk na ci engrais bu jafe woon a gis ci bi ñuy waajal nawet bi moo waral li baykat yi déq ci gerte ci tool yi akas néew daanaka kemb amu ca léppi saxayaay la savon de Marseille Alphé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Deodran Malaysia Yemo NCA santé famille ak NCA auto